torop torop torop torop torop torop torop fu nekk nii moom nice barki rasulullah de kii bu yëmoo kii boo soxoo ko tiit tiit tiit désinfecté wu dindi lépp luy yeme na te nii nag waaw na dugg ci yàlla fi jógee yàlla fi yàlla jële waay baax ah day dugg fii ci diggante yi da ngay forte bu baax fala micro yi di dugg kay ba micro yi dugg mu ngoog kon daal li may def ni baax na nii baax foroteel affaire bi dañ benn micro la topp. jërëjëf nga am jàmm njob ba dem gànnaawaat. waaye nag nice wala corona dem gànnaawaat waaw. réew mi de. waaw am na ci ñoo xam ne ñii ci réew mi. waaw am na ci yenn sénégalais yoo xamante ni fii. Oh, <laughs> Sénégal daanaka ñoom mbaam yu feebar ñoo yem. ndax la foog nga génne yat ñu mën a wér. toog leen. waaw ñu ne dañu toog. toog leen ñu ne dañu toog. te ñu ñuy dóor nag duñu ay responsable ci réew mi booy xool. da ngay gis benn xale bu góor boo xam ne xaaral ma dem jaxaay xoolu pa naes nañuy dóor ba xam police yi nañ ko toog leen seen i kër ngir yàlla toog leen yi yëf yi wér dañoo bañ ba le président de toog ak yéen ci nga xam mooy seen national wax ak sénégalais yëpp na leen toog seen kër ah, ñu a doy waar mooy yaa ko def ku ci wóor rek yaa ko def sénégalais même boo ko waxoon deux heures du matin sax sénégalais jaaxal na deux heures day génn doxantu ci mbedd bi naan xaaral ma génn ba xam police ma dóor waaw waruñu ñoo dóor waruñu yéen ñii seen la ñu wër seen wër na leen fekk seen kër yi man da baax wallaahi xam ma yeewoo lay fatuwaat ma yeewoo tëddaat ma tee laa illaa illaa lan mooy fatuwaat naa. laa yaa ngi daw jàngoro ji de. Ah, a taw. yaa ngi koy xeex man daal bu ma génnee. lii ma génne baal ñëw wax askan wi wax leen li jaadu. xam nga ne li ay Medina. waaw Medina li ñu def loolu. naan poli naan policier kaay leen ba xam ne yéen ñu door ñoo ngi fii la ñuy taxaw ñun. moo tax man eh, yéen dafa ngeen bokk na ci respect. vraiment bokk na ci cër. bokk ci yéen feebar bi ngeen di ñàkkal fayda di ko foowe. waaw bu ngeen ko xamoon. ah waaye ñii dañuy fawaay. baax na. yéen àdduna yëpp jaaxle ñëpp jàpp seen bopp tubaab xam ne ñoo gën a aay ñoo gën a ëpp kenn ku dul yàlla yéen ngeen jël mbir mi boo ko def fo mbir mi du fo a yokku rek ngeen dem di lamb ngeen ñooy li xam leen ni lii seen bien-être rek daal ñuy def il est sérieux de weesu naa sérieux ah. ah. a xam ne nag il faut nag yéen itam li eh, dal seen ab chinois yi dal italien dal Espagne ngir yàlla ayeen eh, fexe leen bu mu ñu dal. léegi bu ñu dalee musiba am bu ñu dalee amuñu doole téye ko. allah président wax na ko képp wax na ko médecin wax na ko ngir yàlla sénégalais toog leen seen a yërëm sa mooy Ablaye Diouf ma nga yor butéel dugg na na garaba nga fa rek Ablaye Diouf Sarr. kon li jënd ko. Ablaye naa ko. ah jeex tàkk woo ko. non moom kay xam naa ne adama moom. dara sol kos kos bi seere. muy léegi kos ba nga yëmbax. daa ah, war daa mujjee woo ko naka ñëwaat yeneen kos. yi. kos mu laata daayam. mu biir waaye nag nice hmm. xam nga ñen laa yërëm ci corona bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu am ñaari jabar jàpp am na ay may am ñaari jabar <coughs> ak ministre yi am ñetti jabar baax ñu ci gën a dee mooy ñi nga xam da ngay am nekk Ndakaaru am jabar ju nekk Thiès wala nga am jabar ju nekk Ndar wala nga am jabar ju nekk Fatick waaw boo ayee feeran fi nooy loolu lañu problème mooy sa problème ah, mën a doo mën a jógee Diourbel mukk jël transport dem tar nañ ko loolu dem Thiès mukk mënoo jóge Ndakaaru gi dem Thiès. mais nga ah nga nga aye ko par WhatsApp. WhatsApp la naan ko bébé loo sol tey. waaye loo sol tey. taa nga cuuraay. Eh. jaajëf a yooyu noonu. gars yi defi ay vidéo que defi ay. dëgg de la bu ba ñu ko waa Jabi nu tuddati. kocc suñu waay kocc waaw suñu xarit la. ah moo doy waar. da koy dugal ci internet bi rek di. après nag Pana bi la nga doon une une dix kocc kenn ñëpp kenn kocc. boo amee jabar. tey jàngoro ji jabar jam la fekk toogal foofu te muñ jabar say jabar lañ wallaahi yow daal yónneel li nga xam mooy dépense bi waaye dépense bi nga xam mooy dépense bu naq moom bu yëwoon téye ko man na ministre la dépense bu ndigg moom il faut ngeen téye ko bu fekkee sa jabar daa sori ministre la yërëm de hmm. ak quelques gendarmes pour ñu war a déplacer am na ay ministre yu am ñetti jabar. waaw ah, loolu kay du jeex doxaat. ak avocat bi nu mu tuddati. bari wax bi rek. kii saa yi ñetteel baa ngi fee sama koñ. non maître bu liggéey eh, ba corona amee ba léegi de El Hadj ñëwatu fi. ma ne ko. sama grand bee ci neex dëcc. ñeent lan. day ruur aye. bi bi bu xëyee. ah day aye bu xëyee lay def tuuri. wër <laughs> wër balaa. 9h ci kii gis nga dogal dogal mu dox. wallaahi wallaahi. non naa yéen naa leen. oh borom ñeent yeeg ñett yi. yërëm naa leen. imbécile laa dégg ñu na dañuy kaas di mars. ñoo ñan la mooy caga ji. yéen ñaaw jaay dem. nee na liggéey guddi bi te doxatul. <laughs> caga ji rek imbécile baax la ñu ñoom. ñii nag la coronavirus. musta baax fenn waaye ci ñii la baax. yéen moom coronavirus xam nga lu ñu wax waaye ca caga ji yéen moom coronavirus day baax nag. caga jee dajaloo ñëw sama koñ. waaw fees fa del naan ñu waaju baax yow mi nekk sunu gaal 21 la wax sunu soxla. mënatuñoo am génn góor. kenn ñëwatuñ ndax 21 góor ñëpp tëddi. dañuy ñu fat sama si mu tàng bu boole ko kotal bi xëpp ñu oh, ma ne bu ñëw sama koñ loolu laaj. nag dañoo waxoon nag bëggoon na ngeen wax Macky Sall nag ni muy ni muy ni muy joxe gaañ yi ñu ne mu boole ñu jun caga ji ndax liggéeyatuñ maanaam xam nga xam nga saa daal yaakaar pour di jox nit ñi koo xam ne liggéey. Ah, jàppale jàppale waaw. waaw caga ji tamit ñoom mujj ñoo ëppal. waaw yow xanaa xamoon naa. président mu jàppale ay caga naan la lay jox da lay du démarché. kon ñu duul de. loolu lañ bëgg a nee nañ. benn affaire benn affaire da laal bëgg a xamal. waaw. gis nga Macky Sall bu duggoon kër gu ne. Mm-hmm. dugg fa ravitaillement ba mat sëkk. waaw ne ku génne dee ku génne boo génne da ngaa xaru. waaw non waaw loolu nag moom baax na ci moom. waaye nag. naa daan na ci borom kër yoo xam ne nii. Oh, billaahi seen dépasse ci journée bi lañ koy réglé kooku boo ko tëjee ñaari fan fu mu jëm donc koy rey boo koy tëj di ko rey boo ko tëjee mu dee boo ko tëjee ko ba pare li ci gën a doy waar mooy xam nga oto yi léegi dëgg genn wàll oto yëpp yematuñu da ngay xëy huit heures dem liggéey soo wàccee quatre heures moom boo tasaloo vingt heures vingt une heures vingt deux heures ci àll bi lay fekk mbokki Sénégal mbokk bitim réew yéen ñi doon am njàqare ci seen wàllu ameublement seen coono jeex na troisième menuiserie métallique Mansour di liggéey ay meubles yu méngoo ak jamono lép loo soxla ci wàllu ameublement muy table lal armoire coiffeuse ba ci escalier boo ñëwee fii ci troisième fekk ko fi liggéey bu mucc ayib te ànd ak jamono muy fer aluminium ba ci inox boo ñëwee di nga ko fi fekk adresse bi benn la Thiaroye Tali Diallo numéro téléphone bi 77 975 75 95 ak troisième daal seen coono jeex na ci wàllu ameublement. wax nga dëgg de baax da ngaa dëgg Kër Masar bëgg liggéey biir Ndakaaru wax nga dëgg de gisoo oto buy daw mënoo koo dox wax nga dëgg nag boo wàccee quatre heures cinq heures boo ca wàccee bëgg a wuti oto da taxaw ci arrêt am naa waajoo xam ne gis naa ñu nag deux heures taxaw na ko ci arrêt bi mënul gis oto te xam nga taay dañu leen yemale oh ku ci yeb ba nit ñi taxaw am na kilifa yoo xamante ne na mhm. wàcc na mbaa deux ngay fay mbaa cinq mille tamit lu jar a wax la nit ñi bëgg respecté nañ feebar bi ah. bëgg nañoo dem seen kër teel a yegg kër waaye moyen de transport waaw gouvernement bi na ci bàyyi xel ak dund gi célibataire yi a jóg waaw ñooñ ndaxaan kat yi doo ngay paajal eh, su ma doon policier yi daal ñuus la ñun ñuus su ma doon policier bu ñuus leen fontoon nit ñi man policier bu ñu mënoon bu lif sax boo ñuus waaye am na waajun ci jàpp da ko def kat eh, gayaar mais nag man naa nga kat gayaar gis naa kiñ kat wut wut kooku moom kooku gars yi dañoo mel ni koy mbajj dugub mais nag nice wut wut ay yëpp gendarmerie waaw ak police waaw war nañoo def benn affaire pour jàppale ko askan wi muy lan ku gendarmerie Colobane dóor waaw ñu bindal la attesté la bindal la këyit bu ko defee euh, police Pikine man la bàyyi nga dem <laughs> ndax il faut ñu bind këyit man maay gendarmerie Colobane maa ko dóor ñetti yet waaw waa Pikine bàyyi loo ci mu jàll parce que mën ngaa wax nga dëgg de parce que mën nañ laa jàppee Colobane fekkee Pikine nga ñibbisi waaw bu la waa Colobane jàppee wëll la boo ñëwee Pikine waa Pikine mën nañ laa jàppaat buñ la wëllu waatee mën na laa rey wax nga dëgg de ah loolu yow li nga kuñ dóor bind la kayit attesté leen nit ñi comme ni ngeen attesté ci oto yi wut leen kayit koo dóoree Ndakaaru Colobane wutal ko kayit bu fekkee parcelle la jëm si nga wutal ko kayit ne kii ni parcelle bu ko police parcelle jàppee mën leen kayit gi ne dóor nañ waa Colobane dóor nañ kon boog mu ngi noonu su fekkee da ngaa ñëw parcelle tamit dóor jëm Pikine noonu buñ la dóoree nga ne leen waa Pikine dóor nañ wax dëgg yàlla nañ si jàpp ngir yàlla ah loolu mooy yoon de mais bu dee célibataire mën nañ ko dóor dix yat waaw non bu dee célibataire dóor bind kayit bu la célibataire rek dóoral rek dóoral police bu ko jàpp lu dóoral ndax doxul da la am njariñ doxewul lu am njariñ doxewul lu am fulla li muy sama koñ sama koñ nag waaw booy vingt heures vingt heures ay vingt et génn naa ne ci mbedd mi waaw ah, gars yi xoolal ñu ngi dóor waa koñ bee waaye ñu ngi dóor ba police bi ñaf ñu soog a départ gis nga Sénégal nice loolu mbaaral mbaaral mbaaral dina tawte ndax day yërndu bilaay day tawte day tawte bàyyi la yërndu bi yërndu bi lañu war a baax na ngay dóor waa koñ bee nga ne foo mën a xool ñu ñu leen di dóor te xam nga lu tax ñu leen di dóor ah, loolu rek am na ñett gudde gis naa ko waxee baax daa paas pour dem xoole waa ñaari tal lañ leen di dóore jóge jóge Kër Massar jël taxi dem jël taxi pour dem xool daxante ba bu fekkee daxante ba foog nga lii lii lii jàmm la pour fekkee daxante ba police yi ak gars yi daxante ñu tañ am nañ kaa bu garaw ah Mahfouz fii waaw sunu gaal dégg naa gars yi laal nañ ko Colobane laal métti non mais dégg naa caméra bi la yor na nii ñu ne ko ah. ñu ne ko filmé ay information ngeen da ngay filmé ngeen <laughs> tëggante la ñu bañ. ndax foofu dañ koo dóor foofu liggéey mën a mën a sunu gaal 25. foofu Sénégal gaal bi yokku nekk ay ñoom dóor waar ak. billaay non non gars yi dañu ne. Mahfouz de Fouta ñàkk nag ndeysaan dëgg naa nag yaaji hmm. yóbbu na ko pharmacie mu ngi ko yóbbu ñu ne ko amuñu garabam. ci benn paa lañ ko yóbbu ngeer. kaas suba kaas ngoon. ma ngi xay. waaw ah, xay. métti naa déedéet dóori moom baax. métti naa mais tërgën yi mais man gis naa ci gars yi di woon ay tërgën tërgono est-ce que policier yi gars yi leen loolu vingt heures moins quinze mmh. yii waaw yow waxtu toll fi vingt heures yii naa vingt heures pile pile fàttuma baax muy ate baax ay